Sure, sure. Jack Hey, one more, asalaamaaleykum wa rahmatulah Taala wa barakatuh ñi ngi ñëwaat di waxtaan ak yéen ci réew mi euh, encore une fois di leen wax rek di leen ginnaaw bu leen sante gërëm leen di leen wax ni encore une fois toujours résistance la résistance la résistance encore une fois on lâche pas les gars on lâche pas l'affaire et on va pas nous la faire on lâche pas l'affaire on va pas nous la faire. Vive la résistance, vive la révolution. Et tous pour la révolution, tous pour un changement radical d'un système oppresseur. Donc, les gars, comme nous avons dit, la femme ay affaire qui doy été yu am pour wax li am qui lenn kese la euh, li que je kàddu gu may que, maa ngi koy féetale ci suñu force de l'ordre yi di leen wax ni dëkk bu demee ba nga xam ni ay njiit di leen di defloo li nga xam ne du yëfu nit li nga xam ne du yëfu gor li nga xam ne du yëfu souverainiste li nga xam ne du yëfu jullit du yëfu nit bu am diine buñ la koy deflooyee war ngaa mun a xool wala nga xalaat suñu borom amul lenn benn mission buñ la mën a teg wala ñu tegal lu war a a tax ngay def surtout ci seen kaw askan loolu kenn warul leen ko force de l'ordre force de défense et de sécurité parce que force de défense et de sécurité mooy nga sécuriser la population mais di la defloo saal bulo nga ay doomu sax di di force de l'ordre dafa lañ leen parce que e, li man ma ci tek sama nopp motax ma def live je don luma metti ay doomu aadama yuñ japp ñii dañ manifester c'est un droit constitutionnel ñenn ñi dañoo wacc seen liggéey di ñibbi ay homme de tenue mais yi nga xamni civilé yu civilisé yu moins di jàpp ay doomu aadama ba ku romb sax ñu jàpp la am benn doomu aadama bu génn wàcc liggéey di ñibbi ñu jàpp ko jàpp ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bokkuñu sax ci affaire yi dañoo wàccoon di ñibbi ñu jàpp leen yóbbu leen police centrale am police centrale boo fa demee dañoo yor seeni cocktail molotov yu ñu defar ñoom policiers yi ñu defar jàpp booy yi di leen dóor ay dóor yoo xam ni maara day taal kenn ci ñoom moo ma woo nii may déglu may dégg booy di yuuxu ay yenn yuuxu yoo xam ni maare am na sax ñuy bañantu ñu def te pourtant ñi ñuy dóor di leen gaañ am na ñoo xam ni wallaay la azim bokkuñu sax ci marché bi dañoo yoon wàcc. ba pare lu gën a grave force de l'ordre police centrale di leen jox ay cocktail molotov ñuy téye ci cocktail molotov ñu leen di dóor di leen wax ni di leen photo ñuy paasante même bouteille yi même bouteille cocktail molotov comme lii bouteille cocktail molotov bouteille cocktail molotov ñu téye loolu ko. ne la dañ laa bett ak nga téye ay butéelu cocktail molotov di leen dóor pour ñu ba pare di leen photo ñu la dóoree ba ngay ba ngay bëgg a dee ba damm sa yaram bi ba ne ñu jël cocktail molotov yooyu nga xam ne ñoom ñoo ko defar mi ngi pour commissariat central ñuy denc ñu jël même butéel yi joxaat keneen dóor la ba ngay bëgg a dee pour nga accepté ko boo accepté ñu jox la nga téye cocktail molotov ñu photo la ci. loolu man maa ko déggal sama bopp nu ñuy jéem a def doomu aadama yi maa ko dégg sama parce que kenn ci ñoom ñoom gis man kooku moo ma benn coy ci boppam moo ma ne mu déglul booy mu déglu mu daw génn ci biti nag pourtant ñii ñu ci bari ci ñoom dañ leen ñun gars yi lu euh, ñu tudd di euh, policiers yi nga xam ne civil ñoom ñoo leen jàpp te ñu ci bari xeexuñu woon carrément moo génn ci buntu commissaire ne moom ñu ci bari xeexuñu woon moo laa dégg nga yuuxee ma ne ko waaw mu ne ma gars yi ñoo nekk fii jàpp booy yi di leen dóor di leen di leen terroriser jàpp jàpp boy di di leen di leen euh, di leen torturer kanam mu ne moom loolu moo tax booy yu di leen torturer ay xale yu ndaw dóor leen ba seen yaram yi daggatoo ñu jël leen di leen jox ay cocktail molotov force di leen photo ak ay cocktail molotov te jàpp ñu ci kenn ak cocktail molotov ma ne ko mais est-ce que nga ma seedeel li ñooñu ñëpp ki euh, euh, nangu ñu ci marché mu ne ma wallahi billahi 80 pour cent yoo xam ni gars yi dañuy fornir rek dañuy génn sol comme nu sol nii civilu ku romb ñu jàpp la ku romb ñu jàpp la xooluñu ku xeex ku xeexul ku romb ñu jàpp la mu ne ma booy dal ci commissariat central bi ni plus de 25 boy, 80 pour cent yëpp bokkuñu ci affaire yi ñii dañoo wàcc di liggéey ñi ngi yore seen tenue ñi ngi sol sax seen tenue mécanicien mécanicien bu sol tenue di dem romb ñu jàpp dugal ci bi xamatuñ kuy xeex xamatuñ ko xeexatul ñëpp la ñuy for di jël di dugal indi leen foofu tuur leen fu yemuñu fi au lieu ñu jël leen dugal leen ci gri bi defuñu ko dañ leen jàpp di leen terroriser di leen traumatiser di leen dóor di leen dóor ay dóor yoo xam ne seen yaram yëpp lañ daggate ba pare jël ay cocktail molotov jox leen di leen di leen ci photo loolu nan la ko doomu aadama di mun a defee sa mbokk nan la ko doomu aadama mun a jàppee doomu aadama mu dem liggéey wàcc nga téye ko mu romb ay nit yu civilu jàpp ko indi yóbbu ngeen yóbbu mel ni xaj sax kenn du ko defee noonu même mbaam kenn du ko dóoree noonu ngeen jàpp xale yi ndaw dugal jàpp leen lii ngeen teg leen ci gri bi ngeen enquête leen ñoo ñoo ñoo ku ci nanguwul ne man bokkuma ci bokk ci defu leen ko doo leen leen enquête jàpp leen di leen dóor di leen jox ay cocktail molotov yoo xam ne yéen ko defar allahu akbar ay butéelu cocktail molotov yoo xam ne yéen ko defar bàyyi ko ci commissariat central di jël butéel yi di ko di leen dóor di leen photo pour ñu ne ñoom ñoo yor cocktail molotov yooyu seen parents yi ñoo fees dell ci bunt bi kenn mënul dugg loolu ngeen foog ni loolu noonu tey policiers yi def loolu nit dina leen jekku di leen baal nit dina leen jekku di leen yërëm nit di leen jekku di am ay arrière pensée ci ñoom wala di am ay pensées yu rafet ci ñoom ñi ngeen di dóor noonu ay doomu jàmbur lañ seeni frère lañ ñi ngeen di dóor noonu seeni mbokk lañ mbokku deret lañ lan moo leen jaral loolu ay njiit yu taxaw yoo xam ne ñooñu ñoo leen fal ñi ngi di dóor ñooñu ñoo fal ñu ñëw def fi 12 ans war a jeexal ne duñ ko fi def ne duñ fi jógee noonu ci jógin bu ñaaw lañ fiy jógee jàpp askanu lëmb di leen dóor di leen rey di leen agressé ñii nga rey leen ñii nga dóor leen ñii nga disparaître loo ñii nga jàpp fenal leen ñii nga xam ne nga sosal leen téeñal leen taqal leen yóbbu leen footu leen ak ay cocktail ma dóor leen ba seen yaram yi tàggatoo ba may wax loolu sax may dégg yuux yi muy génn di ma expliquer moom policier ci biir ci boppam policier bu nekk commissariat central moo ma woo man mii may dégg ay yuuxu mais foofu moom bëri na biir mu ne noo non gars yi ñooy torturer booy yi na ko ma yan ma ay booy yoo xam ni gars yi ñoom ñooy génn nii booy bu romb ñu for la booy bu romb ñu for la ku xeex ak ku xeexul ku wàcc ku jógee liggéey ku ñu yónni ci boutique ba ku ñu romb ñooñu duñu soluñ sax yëre policier ay civil ku ñu romb ñu civil ya jàpp la police civil yi jàpp la yóbbu la ma ne ko kon loolu la ñuy def ñooñu booy yooyu kon ñoom ils sont même pas sûrs que booy dañuy xam mu ne ma wallaahi kuñ for kuñ for rek yóbbu indi jiiñ lañ ay acte subvertive xaw ma subversive ak ay affaire yooyu noonu ay ay ay molotov jël ay molotov yu ñu defar ñoom jël ay molotov yu ñu defar di di di leen ko di leen ci photo loolu dafa ñaaw mais nag fi yàlla gëmut na la wallahi la azim gis nga pouvoir yu ëppoon doole yu yu Macky Sall pouvoir yu ëppoon doole yu ki nga xam ni moom mooy euh, Ablaye Wade pouvoir yooyu yëpp daanu na bu ñu ko xool pouvoiru pouvoir euh, euh, Tunisie pouvoiru Égypte pouvoiru Algérie pouvoiru Mali pouvoiru Guinée pouvoiru Burkina pouvoiru Niger ku leen xool xam ni ñu fa nekkoon ak ko ñoo amoon doole ak ñoo amoon pouvoir wallahi la azim toogin gañ fa toogee woon pouvoir gañ amoon tey jii ñëpp naax saay ba président male ba mujjee faatu ku xool ci ñooñu xam ni policiers yooyu ñuy def loolu salte bés dinañ ko rëcc lool sax bés dinañ ko rëcc lool wallaay dinañ xam ni ànd ak peuple moo gën mukk moo gën junni yoon ànd ak pouvoir ànd ak peuple moo gën fukki junni yoon ànd ak pouvoir waaye nag lu ci kanam raw li bët en tout cas ngeen rey ñu du ñu tax taxaw ngeen téere ñu du taxaw ngeen jàpp ñu sosal di for ay doomu aadama yu ki n'ont rien absolument rien à voir du tax ñu taxaw on n'arrête pas la mer avec ses bras fas yéene taxaw de wallahi billahi boo la ñu doon rey ba ñu jeex tàkk du ñu taxaw di ngeen xam le pouvoir du peuple par le peuple moo ëpp doole loo gis dañoo am ndimbalu suñu borom am maanaam ñaanu suñu borom xaaruñu kenn nag suñu borom rek lañ jiital ndax dañ ñoo tooñ tiiñal ñu taqal ñu tuumaal ñu nu ku gis ni ñu def Ousmane Sonko xam ni tooñal bi musul am ci kaw suuf dugg kër jàmbur dajji buntu kër gi deful yëgul tinul laalewul nga jàpp ko jël yan jël indi dugal dugal ci kaso di tàqale kook njabootam gis nga loolu lépp ñañ ka fi defoon yépp ci ci tooññeel dañoo am ndam koo jël nag fépp ci saar ak ci baatin bañ ko fi defee Serigne Touba yàlla da ko defal ndam à fin bañ ko fi defee El Hadj dafa am ndam à fin bañ ko fi defalee ki nga xam ni moom mooy euh, Ablaye wad, dafa mujjé am ndam bañ ko fi défé ki nga xamni ni mooy mandala yalla da ko mujjé dafal ndam avant mo fatou amul kenn ko xamni ni def jël nañ la toñal la tek la tooñeel tek la natou tek la metti tek la te muñoo te dafa lu la ndam kon allah kulli al, wallahi ma ko wax fi xawma kagn la mais sunko day am ndam lu reuy yalla dina ko bettee ndam lo xamni ni ci bobu sax du ko fokk gis nga l'oppresseur du musa am ndam ci kanamu fii ak fu ñu jëm loolu la yàlla wax l'oppresseur kuy tooñ kuy tooñ tooñkat di tiiñal ak a taqalaate ak a jaay doole du musa am ndam fii ak fu ñu jëm te man maa la waatal ci darajay rasulillah ñëpp ñu jaar ci yoon bii suñ ko jaar am nañ ndam ci kanamu suñu borom am nañ ndam fii avant ñu fee jóge te billaahi dina am ndam ndam lu rëy dina ko am yàlla dina ko may incha allah ña nag di jéem di siyaade ak di djema intimider les sénégalais sénégalais dañu déterminer force lañ andal courage abnégation bëgg-bëgg protection d'un projet sociétal motax tax ñuy jaay seen bakkan gis nañ fi ay ay doomu adam yi ngeen ray ci ay rey yu ñaaw gis nañ fi lu nemee gis na kan ngeen fi gis mu reculer kenn ci ñom reculer wu déedéet tey la walu gëna ay tay lañ gëna labali tay tey lañ gën gëm ni ndam day am inshallah tay tey lañ gën farlu tey lañ gën a sabablu ci lu ñu nekkoon mooy xeex bu ñu nekkoon bu doon benn la tey dañ koy yokk fukk fukk ñi ngi ciy def suñu kéemtalaay kàttan jeunes yi ñi ngi taxaw sur la makadam di ko teewal di xare di ci rey seen bopp te yàlla dina leen ci defal ndam malgré que nag dëkk bu nekk dëkkub seytaane la dëkk bu ñu ne dëkkub naafeq la bari na naafeq naafeq xool leen li ngeen gis tey rek tey ba ngeen yeewoo homme politique yëpp fen nañ koo ci gis mi ngi naan ñu déplorons cet attentat terroriste deux morts et des blessés ne dañuy jéggalu ñoom dañ leen di ñaanal kenn ci ñoom mënul génne mort Macky Sall def na lu mel noonu ndeysaan ay Khalifa sàll def nañ lu mel noonu ñoom ñëpp def nañ loolu léegi laaj leen ana moor yi fu moor yi dëkk ñun loolu la ñu wër moor yi lañ nekk di wër. dama ne Khalifa Sall buy nous déplorons les morts et les blessés Nous mu des ñu blessé wala morts mort mort yi mort Burkina ak Mali après ñom buñu déé dañoo sey sen sen corps yi dañoo sey ay journal Ndour dañoo ñooñu dañoo leen des témoins. moy bo leen

kan la fi sa papa dee ci accident boobu kan la fi sa yaay dee ci boobu kañ la fi sa frère wala sa sœur dee ci accident boobu kañ la fi sa maam dee ci accident boobu ñan lañ ba ngeen blessé la ñu wax anam moori fu ñu ne ci morgue ban lañ ne kañ lañ fa dee ak kañ lañ leen génne kañ lañ leen génne wala dañoo dañoo seey wala fa lakk ba kaar ba seey jël ñi ñu ñi ngi ci biir kaar bi ba léegi anam ñooñu ñoo leen bëgg a jiite yéen ay politiciens yoo xam ne du ñu wëri information dañuy toog fu ñu toog di fen ak a kàcc ñu ñoo leen bëgg a jiite

mais mort amu fa mais nous déplorons euh, Antoine ñàkk jom wax lu mu wax yéen ñëpp ngeen bind nous déplorons les morts attentat suicide attentat explosion bombe nucléaire attentat terroriste di kàcc di wax ay deux morts ana morts yi deux morts yi xanaa amuñu tur xanaa amuñuy mbokk xanaa amuñuy sant ana cadavre yi ana néew yi kañ lañ leen di suuli ban armée la leen di jël ñun loolu la ñuy laajte ana moor yi ku xam moor yi nañu woon ku xam turu moor yi boobu ba tout vingt heures de temps démb ba teg kenn mënul génne benn tur waaw loolu man nan la mën a nan la mën a dëkk boo xam nee bis dafa tàkk mu am ay moor te kenn xamul turu moor yi kenn xamul góor la ñu ay jigéen ñaar ñoo xam kenn daal gisu leen kenn gisul koor tur génn fa amul njaboot gu génn ne man maa deere kenn kenn réclamé wul moor kenn kenn baayam deewul ci kaar boobu kenn yaayam wala frère am wala mbokkam deewul ci kaar boobu te ñun ba léegi ay politiciens ñi ngi génn di ñu wax nous déplorons nous déplorons des morts nous déplorons politiciens yëpp génn nañ mais laaj leen leen kan ban moor la laaj leen ban koñ la nañ ñu génneel tur nañ ñu génneel sant xanaa moor yi dañu am tur sant nañ ñu wax ban armeel la ñu ne kañ leen leen suuli nañ ñu wax néew yi ñoom fan lañ leen yóbbu même bu dee këriñ lañ sax nañ ñu woon néew yi wala ñu wax ñi néew yaa ngi fi.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

fenkat yooyu yëpp wax na am di di jaale ay nit yu deeti kenn gisu yàlla na yàlla xalak lépp lu ñu wut ci àdduna ci mbirum nguur yàlla buñ ko am yàlla na yàlla gàllankoor ci barke Seydina Muhammad ne leen am ñëpp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 yàlla wëlbatiku seen kaw ci barke Seydina Muhammad yàlla nañu ñoom seen pexe bëgg a doon ci nguur yàlla buñ ko doon ba bu ñuy tee ci sang di sàngo suuf maa ngi koy ñaan ci yàlla bu ko xalif xalifa Sall yàlla bu mu a doon njiit ci biir réew ndax kàcc ak ay fen ni nu muy kàcc nañu wax ñaata moo war ñaata moo war nañu wax benn tur ba Macky sàll tey conférence moom tamit mu dem euh, euh, conseil des ministre naan ñu ñu ngi jaale ñu dee ak njaboot bi dee dañan la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 waji de mo Morgun la tudd waaw wa d'accord kon legui na kenen joxe turum parce que ñi ay politiciens yi taxona naan ñi ngi jala deux morts et des blessés blessés grave ak nangam nous déplorons nangam legui comme ñom amuñu tour te ben kër jooyut te gisuñu ku dé te kenn yuuxul kenn newul ci dëj legui dañ leen jox ay tour Khalifa wala Macky Sall yokal fofu Mollah morgan wa amna ku dé ko tuddu Mollah morgan ak kan euh, na kenn na kenn joxe ben turam euh, kan mo nango joxe par ñu jox leen sax au moins boy fen fen day harmonie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 mag bu juk di dul politicien bu juk di dul dak la ñu duul ñoo leen dàqantaayu duul foofu ñun ay dul original yu bes tak lañ am te ay dul ya ancien ngeen sa saa yoo dul ten japp leen te ñu mën nañ leen dul suba wu guddi dool lañu japp kon duñ seen morom seen nawle lañ ngeen ñu wara respecter ku nga nga bind di dul na ay deux mois rek day blessé ñi ngi ñi ngi jaale dàqu leen ñu fenn bo leen ñu ñu dëkk bi gatsa gatsa ci ay dul bo leen ko bëggee rek ñu defal ñu ñi yow di duulalante rek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 té sédé yaa ngi fii ceede yaa ngi fii ñoom ñëpp ñu ngi sédé ñu ñu génn ci car bi ñu ci bari 90 pour nañu ak man ni gisunu dara kenn deewu fa kenn gañu dara amu fa dara amu fa mais c'est incroyable ça non bro noonu la fa demee nag non la fa demee kenn deewu nga affaire bi jaay bu ko tànnee foofu xam nga nit ñi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 kana ay dem ngeen dekk bi kenn amul ku kenn nekk kenn kenn amul jaal ngeen japp ñu bëgg ñoo ray par force bëgg a rey ci ñun ñaar bëgg japp ci ñun ray ci ñaar yu deewul bëgg jël kër yi nga xamni ñi ngi ci jamm ngeen bëgg leen lo way way bay leen fen way dul day am harmonie génne leen ñu benn tur wala ñaari tur wala ngeen génne ñu ay neew wala ngeen wax ñu fan lañ nekk wala ngeen wax ñu ban hôpital lañ ne wala ngeen wax ñu di am ay soins intensifs fan lañ nekk ay way rus leen boo leen boo leen ragalul yàlla sax rusul leen yàlla sax ngeen rus ñu yéen politiciens yi yéen journalistes yi ay boo leen rusul yàlla sax rusu leen ñu wala ngeen ngeen yàq ñu sax ngeen rus ci yàlla nit da nga am loo rus nit ki da am loo ko nawloo nawloo woo leen yàlla yéen politiciens yi bàyyi leen fan lu leen jaral lii yow di fen di wax ay ñaari mort des blessés graves te kenn ci yéen xanaa sa ndayee dee ci ci kaar bi fa Sall xanaa sa bàyyee dee ci kaar bi xanaa sa ndayee lakk ci kaar bi Macky Sall xanaa euh, a Sall la lakk ci kaar bi xanaa Ibrahima Sall la lakk ci kaar ci biir kaar bi wala Marème Faye Sall moo lakk ci kaar bi di wax kan moo dee parce que suñu kër yi kenn ci kaar bi du suñuy papa du suñu yaay du suñu maam te yéen saa yu ngeen yow démb démb ak tey yéen politiciens duulkat yëpp yéen a ngi ñu ñu déplorons ceci cet acte là nangam nangam euh, terroriste nangam deux morts nangam xanaa seen ndayee dee ak seen bàyyi parce que ñun kenn deewul de amul benn kër Sénégal boo xam ne jamono ji mi ngi am na njaal boo xam ne benn nit a dee ci kaar yi yéen doo leen nit a xanaa yéen amu leen sax loo leen di jomb doo leen rus dara ay vrai formation doom ak xaraam ngeen nguur rek ngeen bëgg jaral na leen fan doo leen wuti information doo leen jéem a informé ngeen ne da ngeen bëgg jël jiite réew mi sénégalais yi dinañ jox benn nit boo xam ne amul xamul dara dafa yàkkamtee bind yàkkamtee duul ba amul benn information ñun dinañ ko jox suñu réew ngeen fa nañ jël seen réew bi ko jox doomi xaram yi taxawal fi nga xamni ñom ñoom ñëpp képp ku bind lool motax boy ñom ñu attaquer nañ leen képp ko def sa facebook ay Khalifa fasal boy dem leen nga xol boy ne way dañ ñu gënal ku dé xana dëmm nga bo démé ba né bis bi dafa tak am na ko dé dañ ñu ko gënal bayi leen fenn rus leen yalla bayi leen fenn plus de 24 heures de temps mun leen génn benn nit bu dé dem leen morgue bi sax ngeen for ñaar nit dem leen ci morgue ngeen ngeen luwe ay néew da ngeen mëna a rek Macky Sall mën a duul ak moom ay Antoine léegi Antoine bi leen wax loolu ngeen gëm ko moom te adduna mi da koo fen ay dem leen ci morgue yi ngeen luwee ñaari néew ngeen dem ci ñi nga xam ne dañoo lakk feneen lakkee feneen ngeen dem sax au moins fay leen ngeen luwee tamit ay blessé grave comme di ngeen a mën a duul rek Antoine ñàkk jom bu dàq ko duul ci monde bi wax ngeen relayé yéen seen seen duul naa lisi ñuy waxati politiciens yi ku nekk yow nous déplorons les morts les blessés graves cet acte est ignoble mais sa waay dem leen loué ay néew dem leen loué ay néew dem leen loué ay blessé ngeen ñëw teg dara suñu bët yi teg leen dara suñu loxo yi teg leen dara suñu loxo yi kaay rus leen nag am leen ngor di di rus doo leen nit politiciens laay waxal gars yi buñ ko nekkoo mu xam nga nit ñi dañoo daw génn ak seen gaañu si gaañu bu métti métti noonu noonu noonu sax gars yi dañuy sóob rek li ñuy wax yëpp waaw te fii man dama jóge woon konoon di dem kolobaan bon bi mu amee après xam nga dama wàcc daw dellu jël oto ñibisi parce que maay dëkk zone mbuur bi après si laa daw ñibisi quoi parce que dama doon dem kolobaan après noonu la fa demee quoi mais nekkul loo li ñuy soobee noonu bis bi affaire bi ko dóoree si bis bi ñëpp a daw génn tasaaroo waaw jàppul yére kenn foofu noonu bala ko ko affaire yooyu noonu voilà noonu la fa demee. pourtant kii da cee bokk mi ngi noonu da cee bokk dégg ngeen kii seede la nee na kenn deewu ci ñoom ñëpp a daw génn waaye yéen Khalifa Sall ñoom ñii ñuy rey ñii ñii ñoom Khalifa Sall Barthélemy Zouta Dias ak duulkat yi politiciens yi nekk Sénégal mënoo fenn naan dañuy wuti pouvoir seen bàyyi sax bu yoroon pouvoir du leen ko jox ndax c'est pas des responsables. c'est pas des gens qui méritent di di jiite sax seen biir kër yi wax ma naan dañuy jiite réew ndax koo xam il n'est même pas prêt di dóoraate di dóor te te xamoo lan moo xew bàyyi balaa dóor day xool lu xew xam li xew mu lijjanti ko mu ne balaa moo atte ñii ni jaruñoo jox sax kër barke alxuraan bu doon man la billaahi du ma jox sama àdduna sama kër laa la wax du ma ko mus a jox Idriss Seck mu koy jiite ndax mënul jiite sax këram ñoom ñëpp seen doom yi ay taxawaalukat cago drogue ak euh, nankatu sàngara lañ muy doomu Idrissa sa ak doomu Macky sàll ak tux yàmba ak taxawaaloo lañ fi nekk ñoom ñëpp seen doom yi sax mënuñu leen yar ñu ne dañuy gérer un pays un pays ay doom defkatu gaaf lañ sàcc seen milliards yu bàyyi ñu sàcc suñu bàyyi seen bàyyi sàcc seen alal ñu sàcc seen alalu bàyyi di ko noosee Abdoulaye Seck di taxawaaloo ko wëri caga nekk ci hôtel yi di laalanteeka loolu di partouze ñu ñu mënul yar seen seen kër yi mënuñu yar seen doom yi ñoo ñoo ñu bugg a jiit xam ñu sañ ndey baaxul kon nag Sénégal mi ngi nii ñu ay seede lañ du jeex lu ma ci yor si seede ña nga woon ci biir kenn deewut kenn deewut kenn deewut ngir yàlla ne leen Macky Sall bàyyil duwul kenn deewut bàyyil fen kenn gaañuwul fa gaañu yu tax yu wax kenn nekk ci hôpital yi kenn newul ci néew de bàyyi leen fen bàyyi leen fen bàyyi leen duwul ay waay Antoine ñàkk jom ya ay sonal nañu mun ak fen mun na duul jottali fenkat yeneen yi ku nekk di duul kenn deewut kenn deewut kenn deewut kenn deewut ñi bu leen da ngeen ñoo yéene ay dee yàlla nag seen doom yi faatu yéen ñi yeewu naan ay ñi ngi jaale ñaar ñi dee te gisu leen kenn amu leen tur yéen ñi ni ngeen ñu yéene ñun askan wi yàlla nag mucc si seen kër yi ñaar ñiy dee yàlla na génnee ci kër ñoom Khalifa Sall yàlla na génnee ci ñoom Barthélemy Dias yàlla na génnee ci képp politicien Macky Sall yi taxawul fii di rey ay sénégalais yi deewagul ay rey di rey di rey di rey bay inspiré wu di imaginer ay nit yoo xam ne deewuñu ngeen leen bugg a rey ay assassin ngeen xam nañ leen ay reykatu nit ngeen ay lekkatu nit ngeen ay naankatu deret ngeen mais ngir yàlla bàyyi leen ñu ci jàmm ñu nii xeex kenn deewut kenn deewut ci kaar boobu ngir yàlla ah ne ñun lan lañ def yàlla ñun sénégalais yi war nañ toog seetu de ñun lan lañ def yàlla ñun lan moo tax yàlla mosuñoo baaxee lu baax Sonko mi ñu baaxee sax tey jii mi ngi noonu eh, caabi féete ko ginnaaw ñu comploté ko tiiñal ko taqal ko bu tëj ko ci kaso ñun lan lañ def yàlla ah ku nekk ci ñun war ngaa jàpp de wala ca la nga gëm diine ga nga gëm nga nga jàpp ba set wala nga préparé wu nga dem toog wéetoog yàlla nga laaj ko man oh, allah man laa la def lan laa la def nga xool dëkk bu gën a doome xaraame nga wàcce ma fa muy senegal dëkk bu gën a xaje bu gën a salte dëkk bu arriéré ni dëkk bu xeñ xunnu dëkk bu bëri yoo bëri mbóot bëri mbottu bëri weñ guddi gi nga yónnee ma ay weñ yoo ñu màtt ma ba sama yaram bi di dagg ay waay yàlla lan laa la def lan laa la def jox ma ab passeport boo xam ne mënul dem fenn passeport boo xam ne bu ma ko yoree bu ko tubaab bi tamponné wul mënumaa bouger mais yàlla lu ma la def lan moo tax nga xool dëkk bu gën a doome xaraame wàcce ma fa lan laa la def yàlla lan xanaa dama laa tooñ te yëgoo ko lu gën a ñaaw teef bon rek nga teg ma ko laa la def ah ku nekk war na mun a toog nag ñaan yàlla jéggalu ko yàlla baal ma bu dee dama laa tooñ te yëguma la ba yëguma baal ma yàlla yu yaay buur yaay karim defuma la dara bu dee nag damaa ko dama la tooñ te nga baal ma yóbbu ma ci dëkk goo xam ni guddi gi yooyu di ma lekk di ma lekk ba naan un litre deret mayewu bëccëg sangu weñi ñëw di kole sama kaw guddi gi yëpp ay yoo ñoo may lekk bëccëg bi ay weñ ñoo mel ni ko néew mel ni néew bu yooyu rey ci guddi gi ñu commencé tegu sama kaw bu may lekk mango sax ñu wër ko lu may lekk ñu wër ko bu di ko lekk ak man bu ma tegee sama fonde sax ay weñ na tëmb ci bu ma tegee sama ceeb microbe taxaw ca weñ yi ñëw toog ci da ngay lekk teg bool di lekk weñ yi ñëw di lekk ak yow ngay dàq weñ ci bool bi nii di dàq weñ yi yàlla lu ma la def lan laa la def bu ñu paree ay njiit yu bon bon bon yu mun a fen mun a sos mun a comploter di ma jiite di ma fen di ma rey di ma toroxal bu ma feebaree duñ ma faj bu ma ñàkkee duñ ma may aw benn jox ñu ma opportunité liggéeyu ma xëyu ma bu ma liggéey ñu def ma mbaam di fay cinquante mille soixante dix mille liggéey loo ma ne xaj mais yàlla lan laa def bu ma jàngee bay bugg dee am samay diplôme balaa ñu maa jël bu dee jigéen ñu tëddee ma yàlla lan laa def yàlla lan laa def lan bu ma buggee tukki du ma mun a dem di wëri ambassade taxaw dajale junni fooy juróom-ñaar yii ma sos fi yii ma yokk yii ma fenn pour am visa ñu rejeté ma ma fay lu ma amoon yëpp ma dajale yëpp ci biir mbirum visa ñu rejeté ma yàlla lan laa def. nit ki juddoo Amérique moom am këyitam mm, mm, mun a dem fu ko neex ci àdduna yàlla lan laa def te yëguma nga wax ma ma ma jégalu la. waa ji ne Amérique di yow moom benn yoo du ko sonal guddi man yooyu di ma yàlla lan laa def. ku ci nekk ci nu war ngaa mën a toog nag jéggalu sax yàlla même boo ko xamul di jéggalu te di yàlla jéggal ma yàlla baal ma yàlla baal ma bu dee man ma laa tooñ yàlla baal ma bu dee yëm ko yëg bu ko yëguma ko ay bandi salté sauvage animaux nekk ci média yi guddi gi yoo bëccëg bi weñ ma taal télé ay duurkat taxaw di ma fen rek ma fay télé bi taal rajo bi ay duurkat di ma fen rek ay duur naa di fen rek di sos ma génn ci mbedd mi torox tànge metti ngelaw gi tàng mbóoya sama yii yëpp di dagg sama kii yi woo koŋŋu di fekk taf taf taf lan laa def yàlla naaj bi tàng quarante cinq degré dans l'ombre yàlla lan laa def lan laa def te yëguma ko nga wax ma ah bu ma génnee guddi gi yoo bëccëg bi weñ ma nekk ci biir kër gi xat tàng di ñaq di tuuri ñaq encore quarante cinq degré dans l'ombre may dox pënd poussière mbooya sama gémmiñ yi xar sama tuñ yi fett yàlla la laa def lan laa la def te yëguma ko nga wax ma bu ma taalee télé duulkat yi taxaw bu dul politicien du duul naa liste taxaw ñuy duulante bu ma soxlaa liggéey mënuma ko am bu ma feebaree ñu teg ma ci ay blancar ndox mu baax mënuma koo naan ceeb laay añee di ko reeree bu ma ko mélangé sax ab des fois dugub gi la soit maafe ndëgal soit euh, euh, laax soit sombi soit cere wala caakiri wala nambe yàlla lan laa def lan nekk jeune am doole war a mun a liggéey di am vingt ans à cinquante ans musuma liggéey yàlla lan laa def lan moo lan moo tax nga ñàkk loo ma chance ni lan moo tax nga ñàkk loo ma chance lan moo tax joxoo benn chance lan indi ma sa àdduna bi joxoo ma benn chance dara dara benn opportunité ay nit yu bon nga boole ma ay nit bon boole ma ak ay sàcc ay détourner de deniers publics boole ma ak raykatu nit boole ma ak ay ñàkk ak ak situation dëkk bi nu mu tàngee nu muy méttee yooyu weñ bu nawet bi ngoox yi ngoox mbott yi ngoox yi guddi gi yooyu dala yàlla lu ma def ku ci nekk ci lu war naa mun a toog nag ñaan jéggalu yàlla ah affaire bi métti na de ñu dal lu ñu dal doy na waar nag de non métti na ba ci kanamu yàlla ay waay yàlla nañu yàlla jéggal waay ay waay yàlla na yàlla yàlla wàcc yërmande Sénégal ay waay yàlla na yàlla wàcc yërmande ci Sénégal ay waay yàlla yàlla tàqaleeg politiciens xaj ku ci mbow yi ay waay yàlla yàlla tàqaleeg assassin yi Macky Sall ki ñoñom ci nu mu gën a sedde ay waay yàlla nañu yàlla tàqaleeg yi yàlla nañu yàlla tàqaleeg terroriste ñoom Macky Sall ki politiciens xaj yi mbow yi ay waay yàlla nañu yàlla tàqal ak rebelle politiciens yi xaj ku ci mbu ay waay yàlla nañu yàlla yàlla nañ faatu waaye ñoom ñëpp yàlla a gaawee yàlla nañ fekk ji ñoom Tanor yàlla nañ fekk ji ñoom ñoom ñoom ñoom Habib Thiam ay waay yàlla nañ fekk ji ñoom Djiboka nu mu gën a gaawee waaye may ñu suñu jàmm ñoom ñëpp yàlla faat leen fa yàllaahu fagaagal leen ñu may ñu jàmm ñu ñu continuer suñu mission waaye ñun lii metti na ah. Die of Summer Guy. Peace, and I'm out.